Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di gërëm leen sant les programmes de Salam Vision Salam Vision est une télévision au cœur du développement ñun dañuy informer juste c'est vrai tey dafa jëmale si ne ñuy wax la rétrospective des faits saillants de l'actualité nationale xam nga ni jamono yi sagar ngi xañ fépp Sénégal yàlla fi Ousmane Sonko qui défait la chronique coow li ne coboy ba ñu summi euh, euh, vestam fële ci assemblée nationale Euh, di wax lépp loo xam ne lu si dialogue politique arrestation yi bari nañu Sénégal kenn xamatul muy noonu démocratie ñu leen di euh, pour mu koom-koom éducation lépp feebar moo tax tey notre retour d'aujourd'hui invité deux jeunes de la banlieue euh, kenn ki il s'appelle Pape Soumaré Pape Soumaré asalaamaaleykum. waaleykum salaam ki c'est Maguette Gueye Maguette asalaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi lay waaw donc mbokk askan bi ñu ngi gërëm leen sant di ci gërëm tous les téléspectateurs de Salam Vision euh, question bu njëkk a posé surtout adressé à Pape Soumaré moom ki lay jàppale Matar Cissé ancien ministre euh, chargé du pétrole Matar Cissé doomu Dagana euh, ki xam ne moom mooy Maguette Gaye di un jeune du PDS parti démocratique sénégalais ñaari ndaw yoo xam ni am nañu expérience politique euh, Pape Soumaré la première question tey noo gisee tey coow li Sénégal et la situation politique. Euh, salaamaaleykum mbokku Sénégal euh, ñu ngi nuyu ñëpp di sargal ñëpp di la nuyu yow doyen di nuyu sama frère yi ma bokkal plateau bi mm-hmm. di nuyu ñëpp di wax ni Salam Vision fii suñu kër la tey. Mm-hmm. ñu ngi amaat mbégte lool delluwaat fi dellusiwaat fi. Mm-hmm. di nuyu tous les. téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo ngi suivre mm. euh, di leen nuyu ñoom ñëpp di leen di leen di leen jox seen wàccuwaay. Mm. bon li ma laaj nag dinaa si dinaa tontu parce que la situation politique euh, actuellement. Mm. Euh, comme ni ma ko waxee woon rek dafa actuellement c' est très très très tendu. waaw waruñu woon nag agsi fii comme ni ma koy waxee chaque jour. ndax actuellement nii daanaka dëkk bi soxla woon na leneen. Mm-hmm. lu dul lii ndax am na yeneen yeneen ni moom moo waroon nekk. au cœur de l'actualité mais malheureusement. Mm-hmm. situation bi moo demee nii. Mm-hmm. mais nag si euh, ku nekk homme politique di nga xam ni lii ak politique ñoo ànd. waaw dëkk bi Sénégal koo xam-xam ni c'est un pays politique. mënuñu mm-hmm. mënuñu mënuñu mënuñu dund sans politique. parce que ñun booy xool douze mois sur douze. yëpp politique waaw moo tax parfois euh, politique bi mooy ëpp. lu ñu lu muy lu muy def mooy bu ñu fàtte ni rek. Euh, situation dëkk bi doy na waar. Mm. Euh, may woo ñëpp. Mm. Euh, ñu ñëwaat au calme. Mm. ñu amaat retenu te bañ a taal dëkk bi aussi. waaw di lancer sama message sama moromu jeune la plupart ñoom dañuy gis bi du foofu. priorité bi nekkul foofu. la priorité elle est ailleurs. waaw du ay taal du ay nii yëpp nañu bàyyi li nga xamante ni moo nekk si yoon. justice nañ bàyyi justice def liggéeyam. Mm-hmm. waaw ñun jeunes yi ñu concentré suñu énergie si. Mm-hmm. développement wu Sénégal. Mm-hmm. waaw loolu daal laay ñaan ñu ñu à la retenue di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm. vraiment ñu mérité wuñu lii. ndax suñu ancêtre yi euh, lekk bi ñu bàyyi woon. Euh, jàmm jàmm waaw du lii tey ñoom bu ñu wëlbatiku woon seen bàmmeel du ñu xàmmee. seen i ay sët. kon ñu ngi ñaan yàlla daal na na ñëpp ànd ak retenue ñu ànd ak dal ki nga xamante moo nekk si justice aussi. nañ ko bàyyi mu def liggéeyam. Mm-hmm. ñun ñi nga xamante ne dañuy politique wala ñun nga xam ne ay jeunes lañ dañuy nekk di xëy liggéey dañu xëy dem def suñu vaquer à notre mm-hmm. occupation. Mm-hmm. journaliste bi. ay journal am. si nekk na def ne dem nekk si li mu war a nekk. waaw li si def ñu bàyyi si loxo suñu borom di ñaan yàlla daal ni ma ko waxee daal laa kan kan ñëwaat ci ci ci dëkk bi parce que ñoo ko déglu ko muy Pape Soumaré toogal fi Matar Cissé ancien ministre beneen kàngam euh, Maguette Gueye mm. Maguette Gueye di liggéey. Euh, commune arrondissement de Djiddah Thiaroye Kaw toogal fi monsieur le maire Cheikh Dieng ak El Hadj bu baax euh, Maguette tey ana le parti démocratique sénégalais kenn déggatu leen tey noo gisee la position du PDS par rapport à toutes ces situations difficiles. waaw jërëjëf doyen maa ngi lay nuyu bu baax am vraiment mbégte ak contentement loolu ci ndaje bi ñu daje bi vraiment baax a baax ah. di donc démb comme moom wooyee. Mm-hmm. bu ñu waroon tànkam. parce il fallait que mu ñëw. ndax ci la jaaree fa bu wootee. Mm-hmm. mu nekk suñu identité ñun. Mm-hmm. lépp lu ñu wax ni ci saw dugg suñu ko baax a baax. dañ koy sant bu baax di ko gërëm vraiment. di bi. di nuyu ñaan yàlla lépp loo xam ne mu nekk askan njëriñ boo xam seen bopp. voilà cette question bi. damay wax rek ci position PDS. damay ma ma ma présenté wu maa ngi tudd Maguette Gueye. waaw je de AGEDTK.

sëñ Baara doomu sëñ Fallou. yal na ko yàlla yërëm yokk ay leer tâche si barkeem. dafa woo Ablaye Wade ñaan ko njëkk. mu ne ko man de dama am taalibe de dama dégg ndigal ñaan nga ma bàyyi naa looloo waral Macky Sall ji bi kon loolu Ablaye Wade ex bu ñuy wootee dëgg-dëgg. bu ñu dal si moom lañ koy gis te pourtant xam mais invité le président Macky Sall mun na am routine. Sénégal du fitna ak coow mooy régler problème bi fi dëkk bi dëkku jàmm ak salaam la. Mm-hmm. ndax nit ñu bàyyi fi dëkk loolu lañ fi loolu lañ fi sumb. Mm-hmm. te jàpp naa ne loolu moo fi musawee wéy sëñ Sidi Moxtaar wax na ko. Mm-hmm. nee képp koo xam ne nii andi nga fi coow. si yow lay des. kon nañu bàyyi xel si loolu bu baax a baax a baax. waa PDS nag. ñoom dañoo am position neutre par rapport ak problème bi. waaw parce que. ñu def si parti politique la. Mm. te dañoo am discipline discipline parti dañ ko war a respecté. dafa ñëpp coow boo xam ne bu ñu si interpellé PDS ñoom dugal seen mm. mais du nekk loo xam ne coow Ousmane Sonko ak Pastef wala ci wax. Mm. vraiment mais man li may ñaax xam naa ne position bi si PDS am. Ah. mooy nañ dal. Ah. ñu woote jàmm salaam toog waxtaan. mais invité le président Macky Sall mi nga xam ne moom la le président de tous na dellu ginnaaw si camp lii nga xam ne nii moom lay def. parce que def naa ne du si am ndam. fii dina waaw mm. parce que ni ma gëm. Mm. mooy adversaire politique. boo ko bëggee éliminer da baax ba élection moom gagné ko démocratiquement. Mm. ñëpp xam ne yaa ko gagné. mais pas di que les gens dama koy dama koy ñaxtu fii. di ñaan le président Macky Sall. moom mooy déglu ak askanu Sénégal. nañ dal Sonko bu ñu ko bëggee gagné. nañ dem élection ñu organiser élection yu leer nañ. ku mën sa morom daal. loolu laay wax jërëjëf. kooku mooy euh, Maguette Gaye ñoo ko déggandoo euh, sa position la position du parti démocratique sénégalais nekk un grand parti Pape Soumaré yéen da ngeen jàppale Matar Cissé l'ancien ministre tey situation bi ngeen di tar y a trop d'arrestations ñi ŋaññi suñu justice même les droits de l'hommiste les universitaires tous les sénégalais ont déploré ces euh, arrestations arbitraires Pape Soumaré mm-hmm. doyen balaa ñuy suivre foofu nga xam ne mën a di rek. sama frère parce que il a interpellé le président directement. waaw ah, man damay damay damay leeral rek askan bi. Mm-hmm. ñu xam ni lii xew nii tey man gisuma ci lenn loo xamante ni war nañ ko mën a si taqal le président Macky Sall. oui parce que un citoyen comme Sonko. Mm-hmm. majeur e vacciné. moo jub soldat dem ci ab lieu bu ñuy maasee. Mm-hmm. mu dem fa ba la fay xew xew fa. la fa xew. ki ko xam mooy Ousmane Sonko mi fa demoon Adji Sarr mañ koy mañ koy mañ koy mañ ak yàlla suñu borom. ñoom ñett ñoo fa nekkoon ñoo xam li fa xew. kon boo taxawee bëgg si indi thèse complot man dina ma jaaxal. Hmm. dina ma jaaxal trop parce que man gisuma si fenn foo xamante ni situation bi ni ñu ni muy xew nii yëpp foo xamante ni mën nga fa sentir la mais du pouvoir. Hmm. man gisuma ko fa. kon bu ñu bëggee wax ni lii complot la ah dina man dina ma jaaxal maintenant nag. Hmm. bu fekkee bëgg nañ apaisement. bëgg nañu dal. la justice moo nekk la loi kii euh, mm-hmm. justice bi. Mm-hmm. moom mooy prôné surtout. justice. Mm-hmm. def na li mu war a def. Ah. wax nañ si li mu war a wax. convoqué nañ kii ko war a convoqué. Ah. wax nañ ko wax nañ ko ne wuyu ji wuyu jiwul. yaakaar naa loolu moo yëpp. mais yaakaar naa ki ñu ki ñu interpellé bu demoon wuyu lii yëpp ci am. parce que situation bu tollee fii nii nañ ko wax nañ ko waxte dee. mooy dafa am benn nit boo xamante dafa bañ. dafa bañ euh, jébbal boppam justice. Ah. ba mu bañee jébbal boppam justice am na si fu mu ko teg dañ ko koy nangul. Ah. parce que c' est un député. Hmm. député dafa am baraanu kiiraay. Ah. ba mu loolu amee moom moo woo si ay jeunes. Hmm. ne leen génn leen suba dañ may jël si ñëw leen ngeen taal réew te loolu c' pas un discours de leader. Hmm. kon bu tollee fii bu ñu ci dugal le président bu ñu ci takkal son son ministre de l' intérieur. wala ministre de justice. parce que ñoom ku si nekk citoyen fii amul kenn nul n'est au-dessus de la loi. Hmm. kon buñ la porté plainte hmm. da war a dem wuy ji. Hmm. boo demee wuy ji justice ah yow bu fekkee fan fan la fan la jiiñoon ne yaa fa def bu fekkee taxe yoo fa laale fa man gisuma luy war a mën a tax Ousmane Sonko ñu condamné ko. parce que ba booru ceeb buñ ko tegee boo duglu solo xam ne doo nit. mais kon kon dina wax yow yaa lekk ceeb war a mën a condamné Ousmane Sonko. na Sonko dem wuy ji. def li mu war a def am na son pôle d'avocat am na ay preuve ñu ko mën a permettre mu mën a wan ni fii viol amu fi wala def c'est commencé dem jigéen na ko dem joxe le calme hmm. euh, situation politique bi fi mu toll nii. Ah. du si rek euh, problème mu ah. hmm. yi ah, ñu ngi koy ñu ngi koy gis. mais loolu beneen beneen cas parce que ñi fi arrêté boo seetloo am na luy war a mën a tax ñu téye parce que sécurité dëkk bi. Hmm. moo war a prôner surtout. boo gisee man sécurité dëkk bi mooy Ousmane Sonko bu ñu ko convoqué doyen. Mm. Euh, dafa war a dem wuyu ji. mais ci kaw wuyu boobu waruñu mën a tere un un jeune bi nga xamante ni dafay xëy suba liggéey mu dem liggéey. waaw mais bu fekkee dañuy dañuy nekk si dëkk bi di envoyé ay audio si ay groupe WhatsApp naan génn leen suba dañuy taal. mais kooku buñ la bàyyi nga taal dañ la fi nga teg buñ arrêté la. parce que yaakaar naa police wala gendarmerie du dem arrêté koo xamante ne deful dara man de kenn arrêté wu sama frère bi kenn arrêté wu ko parce que dugul di def ay audio naan ni si am seen partenaire hmm. ñun au du côté hmm. mooy hmm. ki nga xamante ni mooy le moom bi nga xamante dafa waroon génn pour défendre boppam mais malheureusement bu mu génnee joxewul argument bu mën a convaincre sénégalais yi lu dul lii complot la le président Macky Sall moo nekk derrière man je suis désolé mais de plus en ko di def ay sorties hmm. euh, mu may décevoir quoi hmm. man sincèrement parce que man bi affaire bi commencé bokkoon naa Sénégalais yi nga xamante ni dañ wax dëgg yàlla dañoo apporté woon seen soutien à Sonko hmm. parce que jàppoon nañ ni nekkul ci affaire de bassesse yooyu wax dëgg yàlla ñun ku waxal sa de plus en plus muy dugg nag di accuser ah, normal ñu ñëw indi def rek waaw ah. loolu rek moo si moo moo tax ñu si ñu si wax. waaw ma nekk doo doo ma aussi ma indi benn réplique par rapport ak li mu wax. waaw je rappelle aux internautes qui nous qui sont en train de nous suivre. waaw que képp koo xam ne Sénégalais nga tey. fi nga toll xam nga ni Sonko état bi da koy fexe pour éliminer ko. ne dëgg te yàlla buñ toog fii jàkkaarloo ay nit di wax loo xam ne naka su dul noonu. Sonko c' est un c' est un politicien qui dérange. waaw il aspire à être président du Sénégal en 2024. oui tous les moyens sont bons pour éliminer ko. loolu ñëpp xam nañu ko. bi ñu teg c' est un thèse boo xam ne mais tey bu fekkee ne affaire affaire privée la pourquoi pourquoi état bi di di parax parax affaire bi nii pour pour pour dindi mbaaleen tiraay mais affaire privée nañ bàyyi yoon yoon yoon yoon yoon yoon daf liggéey. Mm-hmm. ah mais pourquoi c'est acharnement sur la personne de Ousmane Sonko je suis pas ici pour défendre Ousmane Sonko. oui man je suis du PDS. normalement dans les normes man dama je devais je devais avoir man dama waroon nëbb si problème bi. mais lu tax ma si wax parce que actualité boo xam ne ça touche le Sénégal. pour le Sénégal am naa droit à dire sama point de vue. mais li may ñaan Macky Sall mm-hmm. mooy. lii muy def nii na ko bàyyi man xam nga lu ma gëm. Hmm. adversaire politique. Hmm. da nga jàmmaarloo ak moom. bu amee ay ay conviction nga bàyyi ko def campagne dinañ def campagne bu élection sa hmm. lépp dina leer. parce que a ko loo xam ne tey bu baax bon muy muy interpellé ci affaire élection man pour ah. Ousmane Sonko terewul ñu nelaw man ñii di wax ak yow sax ko Sonko terewul nelaw parce que politiquement ñu ne moom sax du ñu benn président Macky Sall du bokkal ak niveau Ousmane Sonko. Mm-hmm. il faut que nit ñi xam loolu Macky Sall c'est le président de la République du Sénégal mm-hmm. Ousmane Sonko nag duñu ko duñu ko nangul nañ ko li mu doon.

Parce que 58% des Sénégalais ont choisi le président Macky Sall. Mm-hmm. Ils l'avaient choisi en 2012. Mm. Mm-hmm. Ils ont réitéré leur confiance au président Macky Sall. Mm-hmm. waaw loolu loolu loolu bu fekkee foofu rek la koy xoolee. ah man de man jàpp naa président Macky Sall Ousmane Sonko tere ko. man de ñi euh, mm-hmm. mais am nañu ay ah, structures yoo xamante ne ni ñun ay structures la ñu ah. ñoo nelaw moom njabootam. waaw dama dama leen rappeler. Ah. état Sénégal. Mm-hmm. def nañu ay enquête de sondage pour natt tolluwaayu Macky Sall ba Sénégalais yi ba xam ñoo ko def si seen biir xol tey boobu ba tey. Mm-hmm. te loolu ba ñu ko defee. am ngeen si déception. comprendre ma la Ousmane Sonko li tax ngeen def acharnement sur sa hmm. xam ngeen ko bu baax a baax a baax. Hmm. vous l'avez fait avec Karim Wade. vous hmm. pensez que vous l'avez réussi. vous l'avez fait avec Khalifa Sall vous pensez que vous l'avez avec Sonko je suis sûr et certain ça va pas ça va parce que la jeunesse sera devant vous. loolu dama leen ko ngeen bàyyi seen xel bu baax a baax a baax. waaw te tey jii. ak Sénégal fi ñu toll. Sénégal li mu a bañ sa parax parax nii nit ñi nga teggi mbayaalum kiraayam. Mhm. mais on verra les Sénégalais se sont feront face avec vous. ok incha allah bis bu ñu fa demee. Euh. di xam ne lépp dëgg la. kooku mooy euh, Maguette euh, Gaye. li ñu am benn actualité comme c'est la perspective de l'actualité nationale. Pape Soumaré les vaccins les doses de vaccins ñu bari gëmuñu ko am ñu ko am ñu ko gëm ñu ko gëmul. yow qui est proche un de Matar Cissé est-ce que yow gëm nga en tant que jeune en tant qu'adversaire politique. Euh, ces doses de médicaments. On a demandé à certains Sénégalais, à des certains Sénégalais qui ma déggee yenn jeunes yi di taxaw. ñu bari am de Sénégalais. ne ñoom laa bokkal ñoom laa bokkal niveau. waaw ah. peut être ñun Sénégal dañoo baaxoo booy wax da ngay wax ci ak niveau ak ki nga toll niveau ay jeunes lañu. Mm-hmm. parfois tu vois des jeunes yoo xamante ni. dañuy dem di la di di di di wax ay wax yoo xamante ni hmm. dèjà wuñ ko. Hmm. maîtriser wuñ ko gis nga vaccin yi fi ñëw nii. Hmm. vaccin yi fi ñëw nii. amul lenn loo xamante ni lu lu am risque la lu lu wala lu am kii ñun que xale ñu ah, ñu nekkee xale ba léegi ñu am nañ programme programme de vaccination boo xamante ni fii Sénégal boo xamante ni taxaw na taxaw boo xamante ni du ñu jël lenn loo xamante ni luy lor sénégalais. dëgg la ko jox. su fekkoon yaakaar naa fekkoon luy lor sénégalais. kañ lañ commencé vacciner depuis mardi. Il y a, il y a, il y a, en ce moment, a 21 yoo xamante ne ils se sont depuis mm. mardi. Mm. kon su fekkoon vaccin yi luy kon yaakaar naa instant bii nii kon war nañu am 21 000 morts je mm. crois. su fekkee vaccin yi day rey. ah man de ñaan sama mbokku jeunes yi ak sénégalais yi ak sama waajur yi ak ñëpp ñu may déglu. Ah. si koo xamante ne am nga possibilité dem vacciné wu. na dem vacciné wu. ñu jeex jeexal feebar bi parce que feebar bi mu ngi bëgg a yóbbu. effectivement tey rek on a huit décès. huit waaw mhm. ku seetaan point de jour bi cas yi wàccagul. Mhm. on parle de deux cent deux cent cinquante deux cent soixante dix deux cent quatre vingt. Mhm. xam loolu jugee ko fi. kon fi mu toll nii notre seule voie de salut. mooy vaccin yi. en plus bu ñu wax si wax si vaccin yi ba fàttee mesure barrière. ba gars yi gën a respecté mesure barrière. parce que loolu rek moo fi nekk amul leneen lu mën a xeex feebar bi. vaccin yi. wax nañu ne ku fi ku fi vacciné wu di nga am immunité à soixante dix neuf pour cent mais loolu lan moo lan moo lan lan lan moo tax gars yi bu ñu vacciné wu. waaw ah. loolu jaaxal na ñu ni ñu bëgg a def moo koy procès autour mm-hmm. parce que vaccin suñu ay suñu ay spécialistes saytu nañu saytu waat ko. Ah, xam mm-hmm. mm-hmm. lan moo lan moo fi xew lan moo fi xew entre temps ba nit ñi nangoo fi ñu vacciné wu. loolu jaaxal quoi. dëgg la waaw mais ñaan lépp. waaw am possibilité dem vacciné wu rek na nga dem wu. bien vrai que vaccin yi nag doyagul. Mm. waaw entreprise bi nag dëgg rek dëgg moo ko neex. 200000 mm. doses sur 16 de sénégalais. Mm. ah ñu xaar fii ak semaine prochaine peut-être dinañ am euh, dinañ am euh, euh, complément wu yeneen doses yi à savoir que les 6800 6 6 millions 800000 doses yi nga xamante ni moom la ñuy xaar. on l'espère j'espère bien Maguette vous êtes satisfait de ces bon il beaucoup de supputation.

taxaw unité de production de masques fii si centre ah. defar cent mille masques. jëf seetal ko askan wi jëlee caare ko. seen wu ñu terewul. waaw ah, ce sont les jeunes de jëlee caare ko dem quartier wu quartier délégué de quartier ñëpp les personnes ressources boo leen jël masque teg ko à disposition. Ah, kon loolu def naa taxawaay moom lu am solo la. Mm-hmm. ba pare boo seetloo aussi si daara yi xam ne dañ fay nekk. Mm-hmm. ay taalibe nekk suñuy jarbaat suñuy doom dañoo itam dañuy am ne ceeb dawlin. ba si gel ak observer lépp ñu mën a fàggandiku feebar. Hmm. ndax dañ ne restez vous lañ wax. Ah. comme ren moom comme confinement dañ ne. Hmm. dañ ne comme xale yi dootuñu dem si mbedd bi ñoom aussi si société bi lañ bokk kon nañ leen jàppale ut leen ay jumtukaay yoo xam ne dinañ a dundee. Hmm. ba feebar bi ba feebar bi mën a dal. may rappeler aussi sama collègue. Ah. le président le président de la république. démb ku ko dégg ni mu waxee ba keroog ba ñu vacciné wu. Ah. nga xam ne sénégalais bu toog am nga gàcce fi nga toog. bu fekkee am na cellule de communication cellule de communication baaxul. donc président de la République ne parle pas comme ça en Sonko. c'est-à-dire oui. tey que pourquoi le tous les Sénégalais sont réticents par rapport à ce vaccin. Hmm. ça veut dire que y a un problème. Hmm. y a certains yi nga xam ne gëmuñu sax ne feebar am na. même si vrai ko ñun gëm nañ ko. Hmm. gis nañ ñi xam ne ni dal na leen. ñu leen masawu au passage ñaan suñu nga njiit nga njiit dafa am noo war a waxee mhm. si askan ndax sëriñ si moo ngi lay déglu xale bi moo ngi lay déglu ku góor a ngi lay lay déglu mhm. ay borom bopp ñoo lay déglu mhm. li doon li doon gënoon mooy sensibilisation bi dafa doon commencé à la base ndax tey jii mbas mi ba mu commencé Macky Sall wax ma fii biir département biir commune Djiddah Thiaroye Kao loolu la fi def. Hmm. am xam ne bu ñu si ñëwee tey mën na ko si andi ay preuve léegi. Hmm. mairie bu hmm. ko takk bu ko defarul ay politiciens ñoo ko defar jox ko seen i nit. te pourtant état moom am am taxawaay bi keneen la problème Sénégalais yi mais dañ leen tiital. comprendre ñu man am ñoo xam dañuy di ne vaccin baaxul ça veut dire que état communiqué bu baax

ah mais on a contraint allez allez sa vacciner mu doog a vacciné wu. Mm. ça c'est un problème. Mm. mais demal Russie tey Poutine dafa toog vacciné wu. ah Macron dafa toog vacciné wu. mais Macky Sall on a contraint allez sa vacciner loolu c'est un problème. comme ren li ma la. kon loolu war nga xoolal seen seen campagne seen cellule de communication. communication pour ëllëg beneen ñooñu bàyyi xel si lu mel nii. mais vaccin bi man je suis favorable à ce vaccin. parce que gëm naa ne vaccin bi. képp koo xam ne ni jël nga ko gëm naa ne à 100 pour cent dugg nga si feebar. waaw Pape Soumaré ñu ko déggoo. on parle beaucoup de manque de communication. au niveau de la présidence de la République bu dee bu kii des alliés les porte Matar Cissé est-ce que am si ces douze vaccins le président parle de six millions de Sénégalais sont vaccinés euh, Pape bon damay ñëwaat ci rek ci sama frère bi lu mu wax. Ah. Euh, mu ngi wax naan euh, cellule de communication bu président baaxul. bon loolu peut-être point de vue am dama ko koy nangul aussi ah. dama ko koy nangul parce que tamit ku si nekk ak ni ngay apprécier ak waaw ni président waxee peut-être moom am na nu mu ko déggee man am na am naa neneen nu mu ko déggee mm-hmm. loolu duñu si attardé wu mais ñu wax si juste rek sur ah. parce que tey bu ñu indee ay vaccin pour Sénégalais yi mën a vacciner pour ñu jëm ci feebar mm-hmm. est que tey soxla na euh, ñu nekk ñu nekk di convoqué waat tous les politiciens mm-hmm. est-ce que tey parce que yaakaar naa fi toll nii urgence bi mooy ñu fexe bu fi mbas bi jógee mais pas ay di woo ay ay kii mm. mais woote bi ñu woote woo nañ ñëpp ah. waxtaan na ne président wax na leen li mu bëgg li mu bëgg ci ci mbas mi ah. président li mu waxoon ñoom mi yaakaar naa mi ngi koy mi ngi koy def mm. si su ma su ma juumul mm. te en plus il parle aussi léegi-léegi mu ne mbas mi bi mu amee ñoom seen seen maire le doyen Cheikh Dieng ñu koy nuyu de passage euh, def na def na taxawaay bu am solo man de man man man man mii di wax ak yéen si commune de Djiddah Thiaroye Kaw laa dëkk fii laa dëkk ci quartier wax mais man gisuma fi lu fi mais def sincèrement. ah bon gisuma ko. Mhm. gisuma fi masque bu mu fi séddale. ceeb yi muy wax ah man xanaa dama yaakaar ni denrée alimentaire xanaa ñaari façon denrée la. Mhm. denrée yi fi président joxe ñoom lañ fi indi séddale ko de. ñoom lañ fi indi séddale ko. man séddale yi gis naa ñu doon séddale mais ba léegi gisuma man li ñu séddale wax dëgg yàlla wax nañu ni temps am ngeen temps de l'eau temps de l'eau dugg na fi séddale nañ ko si quartier bi diwa diwa bii mu mhm. xamante ni. ñoom ay ay récipiendaires la wax dëgg yàlla loolu moom gis naa ko hmm. mais man bu fekkee dafa am beneen daara boo xamante ni commune bi Djiddah Thiaroye Kaw moo ko indi man man Soumaré gisuma ko ah. man daara président indi hmm. ñu teg ko si loxo chef de quartier bi nga xamante ni moo fi nekkoon di séddale daara yi ñu doon def recensement yi di xool les familles les plus diminuées pour ñu jox leen yooyu gisuma ko waaye dégg naa ni ñëw na ba jox nañ ko ay famille ba présenté nañ liste bi am na ay group whatsapp yu ñu bokk gars yi def nañ ci liggéey bu am solo wane ko avec am mu am transparence ah mais bu fekkee dafa am beneen gaare boo xamante ni le doyen sax jéem moom moo ko defar ah moom loolu gisuma dëgg yàlla ah Maguette oui là vraiment on attaque le maire ah, et c'est partisan quest que tu en ma koy tontu gisuma sax gisuma aussi ah. gisuma aussi ay masques ñu séddale yi ma doon tax depuis première vague bi euh, suñu ASC e bu bu bu bu nekk moom moo ko doon joxe les masques sax étaient étaient étaient masques yi si couleur ANC bi lañ ko def. à savoir le rouge blanc. lañ ko doon joxe di ko séddale. kon ñun bu ñu waxee ni am na ay masques yu jógee euh, au niveau de la commune ah man gisuma masques yooyu masques yi ñu fi joxe ASC bi ñu dëkkal euh, avec le soutien de tous les fils de l'ASC mm. ak yéen comme ni nga ko waxee yéen politiciens yi dama ko koy nangu ñoom tamit aussi dugal nañ seen loxo. Mm. ASC bi defar ay masques ñu séddale ko. mais wax dëgg yàlla bu fekkee am na masque yoo xam ne dafa jógee à la mairie. Mm-hmm. ah man de gisul ko. sama co sama waay la sama xarit ah, ah, ah. mais dama koy comprendre. Mm. parce que position politique politicien bi nekk yàlla tax. Mm. xam ne jënd caare ko bii ñu ne. Mm. Cheikh Dieng bi département bi taxawaay bi mu am si mbas mi. ñëpp a ko rafetlu. ba si biir école yi. si jàkkee si jumaa yi. arab Ousseynou bee nga dëkk. danañ fekk ko këram. ñu woo ko dañ ko fekkoon sax mu tëdd dañ ko fëgg mu jóg am na suñu responsable yi nekk foofu lañ woo ñun ñëw andi masque yi andi gel yi hmm. comprendre li ma teg ko seen loxo te maire ba pare comité de quartier yi nga xam ne yëpp dañ créé nañ si biir quartier yi fu ne dañ fa dem woo personne ressource quartier bu nekk parce que dañ ne quartier boo dugg da nga jaar si bunti hmm. hmm. si ASC nañ ko jox ñoo si toog wala ñu dem denc ko wala jox ko ku leen neex. Mm-hmm. tey yow l'ensemble dëkk par là mii moom mooy moo mooy sa délégué de quartier. Mm-hmm. demal nga laaj ñëw ne këram dafa comité. Ah. jël masque yi jox ko. Mm-hmm. te la preuve l'ensemble moo am benn lu spécial. ñi nga xam ne ñoo àndaloon man di séddale masque du ñoo bàyyi ñooy fay. l'ensemble côté bi dañ leen jox 1000 côté bee ñu jox leen 1000 parce que par dañ ne l'ensemble bi yëpp 1000 masques mu doyu ah. ma bàyyi ma fenn. par là ko jox 1000 Euh, kiiw kiiw May Ndiaye bii lu mu tudd xaw ma lan Ndiaye. Awa Ndiaye Awa moom moom moo toog si loolu. bu la neexee pour des fins de vérification mën ngeen dem ngeen vérifier loolu. Mm-hmm. moom moo toog si biir jotaay boobu. Mm-hmm. man mii di mm-hmm. bi. te zone bii laa dëkk. sama askan loolu bu ñu koy def j'ai en tant que citoyen dama war a ñëw dugal sama seen biir. comprendre li ma la si ceeb yi dëwlin yooyu ngay wax. dama koy rappeler ne Macky Sall ba mbas mi amee danañ day andi ndimbal jox ko jox ko jox ko famille. Hmm. ñu ne ku ne na dellu sa biir bàyyi ñu xool ñu xam ne yelloon nañ ko ñu jox leen ko. comprendre li hmm. mais yow tey Macky Sall loolu mu jox sax doyul ndax ji la jaaree kaw tey 7000 xaw ma 180 et quelques et quelques kits la amoon. te am ñoo xam ne da dem tey si séeréer ñi xam dañoo am bourse familiale. Hmm. ñi nga ko la jaaree kaw. njëkk andi. il a créé des problèmes yéen délégué quartier ŋàññi lañ leen sànni nañ leen xeer ndax dañoo jàpp ne affaire dañ ko jël jox ko seen nit alors que quartier dëgg-dëgg ña fa dëkk ñoo ñoo mën xam ña fa dëkk ba xam am nañ doole wala yelloon nañ jox leen li mën baax wala def hmm. am ñoo xam dañ toog si comprendre li ma la grand cargos mi xam day liggéey état civil bi maire jëlee caare ko defal nga laaj hmm. ba ñuy defar masque yi bay ñëw ko ne yëg na ko réunion de bii ba ngay def ji hmm. délégué bi di andi yi moom foon toog nday ñan conseil municipal ah. bi dëkk Nassar ah. moom na moom mën na seede loolu doomu bàyyi ma fekk. moom foon toog ak yaayu Kanja Traoré. Mm. maire bi tam tam tam nekk lu euh, mu tudd. bàjjenu ko bàjjenu ko si si si bii nii. Mm. kon loolu yëpp ay preuve yoo xam ne mën nañu ko mm. te tey tey yoon bu ñu mayee tey ñu génne ay image ak ay vidéo ñu koy génne teg ko. pour firndeel na ne docteur Cheikh Gueye taxawaay bii nga xam ne am na ko si biir mbas mi. amul benn maire bu nekk si département bi mu ko am. ndax tey jii muy jaaxal. muy daara muy école publique muy école privée lépp yóbbu nañ fa lavoir ñu ngi raxas seen loxo yóbbu fa eau de javel yóbbu fa coton yóbbu fa ay gel yóbbu fa ay masque ba pare dinañ sensibiliser pour képp ku dugg ngay raxas sa loxo ba génn nga raxas sa loxo a te xam naa ne ñaan ma ko yàlla lu mel ni bu fi ñëwaatoon taxawaay bu ëpp solo boobu dafay am ñoo ko dégg loolu kooku mooy euh, Maguette euh, euh, Gaye mm. responsable politique PDS à Djidah Thiaroye Kao en compagnie de Pape Soumaré ba léegi ñu jëm sur le plan euh, d' éducation et et d' éducation de la santé. Euh, question bi Pape Soumaré euh, banlieue bi sonn nañu manque d' sanitaire garab amatul Covid baa ngi faat nit ñi éducation est passée à côté en tant que ndaw Matar Cissé tey noo a tey au niveau de la banlieue. bu ñu ñëwee ci côté éducation ak mm-hmm. euh, santé bi. Mm-hmm. ak euh, situation sanitaire bi nga xamante ne moo nekk ci dëkk bi. Mm-hmm. wax dëgg yàlla bu ñu ko bu ñu ko analyser d'une manière globale. fi toll nii lépp mi ngi à terre. muy mu à à savoir euh, bi. éducation bi yëpp mi ngi parce que fi mooy li ñu fi li ñu fi waxoon sànq rek mooy il faut que les gens aillent se vacciner. pour mbas mi ñu fay jóge feeg mbas mi jógewu fi monsieur Sarr éducation bi mënul dox comme ni mu war a doxee mm. dèjà élèves heure yi ñu waroon jàng dañ ko réduire dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko wàññi mm. covid bi gis ngeen enseignant yi fi enseignant yeeg professeurs yi mu ngi leen di yóbbu nànk ah, nànk te fi mu fi fi ma toll di wax ak yow am na am na enseignant yoo xamante ni dañoo bañ a dem vacciné wu ah. parce que il croit que vaccin bi day rey xam nga loolu yëpp dafay nekk mooy mooy li may wax rek mooy fi covid bi jógewu mm. éducation bi dina ñëw ñëw année bii ñu année bii ñu dugg nii année bee passé fexe nañ ba président Macky Sall ak euh, gouvernement am fexe nañ ba année bi jéem nañ ko sauver. Mm. lépp lu fa waroon nekk si côté éducation mais examen yi waroon am ak yëpp am na mais ren jii nii il va falloir que euh, ñu redoubler d'effort wax dëgg yàlla ànd ak président Macky Sall aussi du tee ñu wax li nga xamante ne ay manquement la wax dëgg yàlla. Mm. éducation bi nañ si gën a dugal loxo. la fois passée sama dernier passage fii waxoon naa ko. Mm. nee am na benn taux boo war nañ ko jox éducation ak santé. Mhm. si budget bu nekk. Ah. war nañ ko jox benn taux boo xamante ni mais malheureusement Sénégal accès gul si taux ba léegi moo tax ngay gis jafe-jafe yi am ci côté éducation ak santé. Mhm. yàlla mën nañu dimbali nag avec les avec ressources yi nga xamante ni moom lañ am. Mhm. avec les les les les nouveaux les yi nga xamante ni am nañ ko fi. Ah. allah rabbi bu ñu bu ñu Sénégalais yi redoubler seen confiance. te bañoo dëkk bi incha allah rabbi taux yi ñuy wax yëpp ci côté éducation ak santé yëpp dinañ d'ailleurs si côté santé côté infrastructure santé gis ngeen hôpital yi nga xamante ni inauguré fu nañ ko tout tout récemment mm. gis ngeen hôpital Dalal Jamm mu ngi fii au bien au cœur de la banlieue am na centre CTE ñu fay traité ñi nga xamante ni mbas mi daf leen dal mm. di leen ñaanal yàlla fëgg seen bopp ñi nga xamante ni aussi dañ see génn àdduna suñu borom xare leen àjjana gis ngeen infrastructure sanitaire yi nga xamante ni bari yoo xamante ni actuellement le président mi ngi nekk di ko inauguré mais nag doyul mm. santé du doy mm. euh, éducation aussi mënuñu mënuñu wax développement wala émergence comme ni ko suñu ah suñu leader di waxee le mm. président Macky Sall euh, te mënuñu am éducation bu normal ah kon ñu ngi ñaan nit ñi nañu fexe ba ñu dem vacciné pour ñu mën a ñëwaat à la euh, la dernière question. Euh, chef Dieng, sur le plan jiite Karakou 66 quartier monsieur Gaye. vraiment euh, damay am métier ak contentement loolu pour tontu si question. képp koo xam jiite Thiaré boo xam ne Cheikh Dieye mm-hmm. bu mu ñëwee 2014. Dieye boobu bu ñu defee teg mm-hmm. mooy dafa jël 53 étudiants. yóbbu leen fii ñuy wax école Bill Jobs. Mm-hmm. mooy nekk West Foire. si dafa leen prise en charge boo xam ne nii de 5 ans de première année à la master 2. Ah pour ñu génn nekk ay cadres. tey jeunes génn nañ am ñoo xam ne am na si liggéey ñoom liggéey. ndax màgget man li ma gëm la ma wax ne ma jàng dama jàng ba am ay diplôme hmm. te gëm naa ne ndaw bëgg a jëriñ sa bopp bu doon ñëw ma lay jox xaalis eh da nga am besoin de formation hmm. ñëw moom may la prise en charge nga dem jàngi hmm. boo jàngee ëllëg nekkaat nga mun a dimbali sa bopp dimbali sa dina ñoom kon kuy def loolu donc ko war a rafetlu c'est le moment tey am ñoo xam ne xamuñu ko woon ma leeral ko moo may ay formation hôtellerie restauration couture coiffure tey defe naa ku nekk jëlee caare ko man mii suñu association bi AGDDK am na si huit huit boo yoo xam ne génn ah. set yi am na liggéey tey. Mhm. kenn ki premier salaire ma ko fayee ko dafa ñëw ba si man dama bëgg dem yóbbu ko monsieur le maire ba ma koy téléphone dana ma màgget ne ko na ko yóbbu seen kër jënd. est-ce que restauration la doon ah, mu génn dem stage Dakar. patron bi mu gis mu ñax la fi nekk ku dynamique. mu proposé ko contrat. c'est vrai la départ ba léegi nee na il a cent soixante quinze mille. Ah, am solo la. am na koo xam ne jëli yaa may nga la tudd moo ngi dëkk fële CFA extension Moussa Thiam yi bàyyi ma fenn. Ah, daf na coiffure génn deux ans. Hmm. nee na bu tabaski daan ñëw da daan pour jënd xar nee na ba mu defee formation jën di létt ay bopp teg ay greffage hmm. dafa pré tabaski dafa jëkkati soixante mille francs jox papa ne ko maa ko jàppale si tam si si si xar bi beneen bi mu jënd xar tegal ko papa hmm. loolu la moo tax mu am ko c'est le docteur Cheikh yi hmm. may fàttali aussi ci côté éducation ba tey nee li mu gëm tous les moyens sont pour créer des ndax ndaw yi dañoo soxla formation

dañuy woo école Biltos nga xam dafa signé woon partenariat. Mm. ñoom si jëm boppam ñoom ñoo lay testé pour xool. Mm. ba xam yow dañ la jàngal dañ la formé ba xam maîtriser nga. soo paree ñu jox la diplôme d'état. Ah, loolu lu am solo la. Mm. bu ñëwee tey si éducation ba tey Djida Thiaré ko 2014. la élèves yi nekk nekk Djida ah, parce que nee na bugguma doomu baadoolo ak doom ko am ñu romb ñu xam ne. kii mooy doom ko am kii la ma gëm mooy blouse yi. dañ leen defal ñoom ñëpp ñu nekk même pied d'égalité. te inscription dana ñëw ñu joxe ko à 3000 francs hmm. ñu ñëw plus yi mën leen dana ko joxe 500 francs 500 francs yooyu sur les 1000 élèves wala 500 élèves yi inscrits dañ ko jël bàyyiwaat ko si biir école bi. ci sa courant ci sa fay ndox ci sa fay gàncax. kon képp kuy def loolu. Hmm. kon war nañ war nañ ko mën a sant war nañ ko mën a gëm xam ne moom dugal moom si éducation. Hmm. may rappeler rek sama co-débatteur. le président Macky Sall bu yi passé un million d'emplois la première waa Bali man gëmu politicien boo xam ne bala muy wax ak yow ñëw xam nga lu ma gëm man da ngay man di ñëw ma sur le terrain nga xam yan jafe-jafe de femmes élection ñëw nga ay deux cent cinquante trois cent mm-hmm. pour mën am seen voix bu ñu mm-hmm. ne dañ boo leen wooy jot leen boo leen amee message loolu leen woo lay jot mais mm-hmm. boo koy def on peut faire de la politique mais tout à garage di man mii di wax yow tey je suis agent municipal je travaille dans la mairie. Hmm. te tey gis à travers mon moom. Hmm. ñu liggéey tey. te man sama association ñëpp a ngi gis seen bopp suñu mairie. ñu hmm. koy sant bu baax di ko gërëm ko. di ñaan suñu borom yàggal taxawaay. ma bëgg aussi leader politique yi nekk fii biir département bi. ñuy copier si moom. waaw ah, muy Modou muy Guèye la Badiane ku mu mënta doon ñuy bàyyi xel si moom bu baax baax. parce tey li gëm mooy màgget dem ëllëg ma yàlla dimbalee ma nekk ministre dinaa def ne directeur de société ndax am ngeen jàng bu leen ko mun a may mm-hmm. kon leader politique bi xam ne dafa am as dina jàppale kooku gëm naa ne ko yàlla yëpp ay jeunes Cheikh Ndiaye mm-hmm. te ku ne mm-hmm. da nga ko am mu bëree mu néew yaa ngi koy ko sa kër di fete di ko gërëm di ko sant di gërëm aussi Pape Soumaré. jërëjëf Théodore Matar Cissé kii c'est un jeune du PDS. un jeune aussi qui mais nag taa xanaa nga sànni benn kii bu ndaw. waaw waaw li may li may fàttali rek mooy lim fi lim yëpp wax ko fi. Ah. Ah. man si si commune bi Djidah Thiaroye Kaw laa bokk mais lim fi lim nii di ko wax nii yëpp tey laa ko mos a dégg. ah bon tey laa ko mos a dégg. formation yi formation yi yëpp tey laa ko tey laa tey laa ko mos a dégg man affaire bi damaa jaaxal loolu ñuy wax ni comme léegi woon léppoon ci man parce que am sa maire ñu dëkk si benn gox mu ne si les 66 quartiers yëpp euh, taxawaayu Cheikh Dieng feeñ na fa man na man ci côté boobu noonu wax dëgg yàlla muy côté éducation wax ak wax ci côté côté jeunes yi nga leen di moom dafa nekk en en parfaite euh, dafa xaw a nduru man sama leader may jàppale muy Mouhamadou Makhtar Cissé. moom il a parlé de 75 personnes yoo xamante ni. Euh, le maire Cheikh Dieng mu ngi leen kii ñun on a 300 étudiants yoo xamante ni. Euh, Mouhamadou ma Cissé. moom moo leen di jàppale actuellement comme ni mu ko waxee cinq ans la leen di fayal ñu dem wax dëgg yàlla loolu moom mm-hmm. man ma xamee rafetlu bu baax a baax na di rafetlu loolu bu baax a baax ndax fekkee nit da ko mën a da nga ko a dimbali comme ni mu wax da koy jàppale ci mu formé ko mm-hmm. jeune boo ko formé rek ubbil nga ko buntu yu bari ah, wax dëgg yàlla lu doyee bu fekkee moo def loolu man de sentir ko nag ci kaari mais bu fekkee koy def mm-hmm. ah nañ fa koy ñaan ñu ngi koy ñaan aussi mu wàccee ko ba quartier yëpp mu daj ko xam naa ne nag euh, maire amul doole bu war a a tax mu couvrir ñëpp. Mm-hmm. utal xëy ñëpp état si mënul lool. wax dëgg yàlla ndax léegi nag ñu mm-hmm. nga xamante ni le président bi war na ko bànnee bi. Mm-hmm. mais ñu xam ne rek. Euh, mairie mënul lépp mais mën nañu def communication bu ci war mënuñ utal ñëpp xëy mais mën na former le maximum de jeunes. dañ ko wàccee ci quartier yi.

defee un mois de vacances. Mm-hmm. deux mois yi dañ leen delluwaat si biir ñu jàngal ñu jàngal te loolu am na ay résultats yoo xam ne am na si yoo xam ne. Mm-hmm. tax na Djidah Thiaroye Kao tey mooy deuxième si gën a garaaw. Mm-hmm. bu ñu jàngee deux mois ba pare. bu école tijji dañ leen may ay kits scolaires. ay sac loo xam ne day am kay lépp bu ko defee seen parents yi gratuit mën leen gratuitement. ñu mën leen jàppale pour au moins yenn dépense yu mën leen ko wàccal. may fàttali aussi sama conservateur. gis nga am naa si si côté éducation. si côté 500 bu dul 500 bi tamit bëgg naa nga wax ci de. si côté am naa élèves mais si côté si côté éducation. si côté éducation may fàttali. c'est ça loolu Moussa Diagne du ma bàyyam fenn. heure bu ñu koy amal. dañuy def sonorisation teg si oto. ñu wër si commune Djidah Thiaroye ko ñu def caravane bi ku yëgal nit ñi. comprendre li ma la pour yëgal ko ñëpp pour ñu am même niveau d'information. mais nag bu fekkee da ngay ànd leader politique bu fekkee da nga jiw rek bëgg boobu la xam nga ah. war a xam. ay ay doomu Djidah Thiaroye Kao nga. Djidah ah. Thiaroye Kao moo leen ñor. Ah. avant tout vous êtes des fils de Djidah Thiaroye Kao te Djidah Thiaroye Kao bu baaxee ay doomu Djidah Thiaroye Kao ñoo ko defar. Mm. Mm. man tey bu la may ànd ak politique di sama avantage déet damay dem jël ko. Mm. parce que Djidah Thiaroye Kao ma nga dem vers l'information. du maire mooy ñëw vers yéen mais il faut ngeen dem vers l'information. ok yow si maire bi si nga bokk man si laa bokk kii si la bokk kii yëpp si la bokk loolu ma leen koy fàttali bu baax a baax ngeen si bàyyi xel yow kay danga naan dangaa nangul ne yow loolu am na wala moo koy bañ a mais ñëpp xam nañ ne heure bi ngay commencé dama naan sax relation bi nga xam ne moom mooy jiite caravane bi nañ awee côté Touba bi jël naa sax jël métti mën a doog ko dem côté zone loolu duñ ma bàyyi ma fen ah. voilà jërëjëf kooku ma doon euh, Maguette fii Cheikh Dieng maire la commune d'arrondissement de Guédiawaye Kaw ak euh, Pape Soumaré di jàppale Matar nekkoon euh, la rétrospective là des faits saillants de l'actualité nationale euh, di gërëm ñëpp di gërëm aussi tous les téléspectateurs de Salam Vision à travers la diaspora mbokk yi présentation Cheikhou Sakho jàmm ak jàmm beneen yoon incha